du nekk très bien eh. très bien foofu faaw ma leeral ko. foog nga parce que démb maa ngi koy estati sax. Mhm. naan leen si diggante moo xam Macky Sall Amadou Ba. Mhm. Pape Djibril Fall Déthié Fall. Mhm. Euh, kii dëkk Touba nu mu tuddati. kan Bonde. day bonde baara dolli waaw diggante boobu daal war naa faa am lu ma fa leeral pour Sénégal ay gën a comprendre ay ca fi ñu très bien xam nga mm. damay jëkki ci Barthélemy Diaz. Barthélemy Diaz parce que moom moo nekk tête de liste. sàmm sa kàddu national. léegi ñu am trois députés. Mhm. léegi Barth ñëpp xam nañ du siège. du siège. Mhm. su ko neexee day démissionné. Mhm. wala bu duggee tamit dañ koy wàcce. chaque jour ma wax ko fii. très bien boo demee c'est article 61 de la constitution. alinéa 7 moo ci wax. article 61. ah 29 masul nekk 29 de <laughs> du article 29 article 61. moo noté waat ndax noté woon ah. waaw de la constitution. Mhm. sénégalaise. Mhm. alinéa 7 moo ciy wax. Hmm. xam la wax. lii lu mu wax. bu baax de. tout membre parlementaire qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié. de la liste des parlementaires sur demande du ministre de la Justice. D'accord. Article 61 moo ko wax alinéa 7 de la Constitution waaye dafa am beneen article bu ko feelu muy ban ne ma ban article moo ko feelu article 51 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale moo feelu moo feelu waaw kay 61 waaw lu mu wax moom alinéa 6 mhm. mooy ci wax alinéa 6 xam nga lan la wax daanaka li kiy wax moom la wax mhm. dane tout député tout député qui fait l'objet mmh. d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice maanaam yenn termes yi rek lañ changé mais benn la loolu la wax mhm. te ñëpp xam nañ ne kii di Barthélémy Dias dafa am condamnation définitive affaire Ndiaga bi comprendre moom sax xam na ko comprendre mhm. condamnation bi maanaam cour de cassation mu ngi ciy wax mu ngi ko confirmer le 22 décembre Mhm. maanaam foofu li nga ci comprendre mooy purgé na toutes les voies de recours recours mënatul ne. Mhm. deux ans lañ ko condamné dont six, six mois, mois ferme ñu baal ko deux ans et six mois mu tëdd comprendre mhm, léegi tey jii ku mel noonu te des na benn affaire ñu ngi doon wax si si meereem bi ñu ngi ko doon wax nañ ko mettre sous dérogation spéciale ñu ngi si doon wax waaye am na foo xam ne xëy na buñ ko buñ ko buñ si référé woo mën na ko bañ a dal mooy boo demee ne ce pas si code des collectivités territoriales article cent trente cinq mhm. mu ngi ciy wax mu ne lorsqu'un maire mhm. ou conseiller municipal fait l'objet d'une condamnation pour crime mm. pour crime pour crime c'est important pour crime mhm. sa révocation est de droit maanaam bu fekkoon crime lañ ko affaire crime criminel maanaam ci crime lañ ko condamné xam ngeen mm. condamné wu ko ci crime bu fekkoon ci crime lañ ko condamné boobu mën nañ woo article 135 du code des collectivités locales boobaa dañ koy révoquer maanaam doo dootoo mën a nekk maire mm-hmm. comprendre léegi tey jii moom soit day démissionner moom Barthélémy Dias soit day démissionner wala ci duggee assemblée nationale kii day bind ministre de la justice bind bi muy bind lettre boobu xam na lañ koy woowee ci droit. demande de déchéance. moom lay adressé nest au président de l'Assemblée nationale. Mhm. su ko ko bindee daf koy wax rek mu appliquer la loi du ay procédure da koy wax ne ko loi bi lii la wax comme article 61 bi mu la wax si constitution bi ak article n'est-ce pas 51 n'est-ce pas intérieur bi da koy appliquer très bien léegi su ko appliquer ba pare. Mhm. ministre de la justice day bind nest ne ko appliqué nañ telle loi telle personne nekkatul député léegi foofu ministre de la de, de l' intérieur xam nga lan lay def. lu muy day nest pas day radier Barthélémy Dias du fichier électoral. Mm. suñ ko rajee pendant cinq ans du éligible. dootul bokkati waaw éligible du éligible cinq ans kon doful du dem. comprendre léegi xëy na. Mhm. moom ci xam li mu xam loolu lépp su ko neexee mën naa démissionné léegi bu hmm. démissionné nag li mu la bëgg expliqué foofu nag mooy mooy ñii naan baat euh, Pape Djibril Fall mënul nekk député. Hmm. Cheikh Bara Dolly mënul nekk député. Hmm. Euh, Déthié Fall mënul nekk député keneen Abdou Mbow aussi. waaw Abdou si la bokk Abdou Mbow mënul nekk député nañ déglu bu baax ma expliqué leen. ma ah, ci déglu expliqué ok yi ñu ngi déglu ah. waaw ñu ngi déglu ok fa tabaarakallaa léegi. Ah. Barth su démissionné Barthélémy xam nga trois député la woon. léegi moom ah. su démissionné day des maanaam kii moo ci topp Anta Babacar Ngom la. Cheikh Tidiane Youm député la député la ñett après Cheikh Tidiane Youm. xam nga ah. mooy que ah. parité bi dañ koy respecté. Mhm. après Cheikh Tidiane Youm Déthié Fall mooy ñëw cinquième position. Barth mhm. bu démissionné Déthié Fall mooy nekk député xam la moo tax. xam nga bu dee liste nationale. bu dee liste nationale duñ jël suppléant faaw titulaire yi jeex ba pare. pour mhm. ngay mën a xool suppléant. comprendre mhm. xam nga boobu lan ban article moo ci wax. article 154 n'est-ce pas du du code électoral moo ci wax article 154 du code électoral mooy expliquer lii. Mhm. comprendre léegi tey jii bu Barth poussé maanaam bu démissionné. Mhm. xam nga xool dañuy xool non élu de même sexe Barth lan la góor. góor la non élu de même sexe maanaam ko mm. non élu ku ñu koo xam ne moo. ki ñu génne baat ñoo ah. bokk sexe ah. autrement dit ni góor góor lay remplacer jigéen jigéen lay remplacer non élu boobu noonu bi topp ci dernier élu bi ki topp ci Anta Babacar nekk nekk góor waaw kooku noonu nekkoon na député léegi eh, day des bu bi euh, de ci fàlla très bien léegi non élu boobu non élu mhm. de même sexe boobu noonu bii ñëw waaw der après dernier euh, dernier élu bi. Mhm. foofu dernier élu bi kan la Cheikh Diagne Youm. waaw Cheikh Diagne kan moo si topp jigéen. jigéen te Barthélémy Dias góor la. waaw kon jigéen boobu day tëb. day tëb dañuy xool kan moo topp si ku jigéen ki Déthié Fall. kon Déthié Fall mooy bu Barthélémy Dias démissionné Déthié Fall mooy nekk député. d'accord waaye foofu dafa am beneen sew sew. mooy ban sew sew bi mooy Barthélémy kii Déthié Fall xam nga sàmm sa kàddu la bokk. waaw mais bi bi campagne bi commencé dafa dem rejoindre Pastef. Mhm. ba ne sax moom bu nekkee député day démissionné. Mhm. donc léegi bu fekkee Barth dafa pousse Déthié Fall nekk député léegi Déthié Fall démissionné. Hmm. ba léegi li li applicable fële mooy applicable fii. Déthié Fall kan moo ci topp. ku jigéen moo ci topp. Ah. léegi après ku jigéen kooku septième position Pape mooy ñëw. léegi bu Déthié Fall démissionné Pape Djibril Fall day nekk député. parce que moom mooy ñëw après moom ci ku góor. Mhm. kon demum TMFM moom mën nañ ko ni mu xaar waaw naa mën naa xaarandi ne xam naa sëñ bu mu xam mu ngi fay dem bor ay ñaan d'accord kon demum jàkkaarloo bu Pape Djibril Fall waaw mën nañ ko mën nañ stand by bi foo xam ci ay ñaan lu kat mu ngi fay dem fi ne di wut ay ñaan pour Déthié démissionner parce que affaire bi mbir mi ci Déthié la dépendre léegi de parce que Barth day pousse par force soit day démissionner wala bu duggee ministre de la justice bind waaw léegi fi ne nii Déthié Fall ci boppam moom moo nar a nekk mais Déthié Fall newoon na day démissionné. Mhm. donc moom lay neex. mu Déthié Fall lay neex mu démissionné. neexu ko Pape Djibril Fall nekk député. wala neexu ko du démissionné Pape Djibril Fall du nekk député léegi fi mu ne Pape. Hmm. Pape ah. Djibril Fall jamono ji Déthié Fall la yaakaar ci mbir bi. d'accord fi mu ne fu mu xam ci ay ñaanlukat mu ngi fay dem. Hmm. pour jéem a def le tout ba Déthié Fall daal di puus mu dugg. non Déthié waxoon na waaw ah, Déthié moom waxoon na loolu. waxoon léegi Pape fi mu ne ci ay ñaan la ne. Mhm. si ay ñaan danga koo yërëm am nga waa ji da ko doon wax naan <laughs> diw mi <laughs> manqué na ay jàppale bu baax. fii ne mhm. moom Afia Fall manqué na ay jàppale bu baax. soxla na ay jàppale li ñu jóge ci kaa ñu dem feneen. feneen fan ñu dem ci bu Macky Sall. bu Macky Sall waaw. xam nga ñoom. takku takku wàllu ñu ngi am 16. waaw 16 député yooyu maanaam bu nekk wit lay doon. 8 muy takku ak wàllu. waaw ku ne 8. Mhm. léegi euh, kii nii nu mu tëddee waa ji Abdou Mbaw. Abdou Mbaw waaw neuvième position neuvième position maanaam ba jamono ji Abdou Mbow nekkul député. Mhm. neuvième position la mais bu Macky Sall démissionné day nekk député. waaw ndax lan. waaw kay comme li ma waxoon fii mooy applicable fii. Mhm. xam nga neuf lañ. te huit député la war a doon. léegi neuf yooyu noonu Macky Sall bu poussé dañuy dañuy xool. non non élu de même sexe. kan la Abdou Mbow mooy topp parce que mhm. Abdou moo nekk neuvième position donc Abdou mooy yëg. kon Abdou dina dem dina dem. bu fekkoon tête de bi jigéen la Abdou Mbow du yéeg. Hmm. beneen jigéen moo ñëw mais comme góor la te moom moo nekk neuvième position te huit député la hmm. kon Abdou Mbow moom mooy yéeg mooy nekk député. Hmm. moo tax jamono ji Abdou Mbow pour mu nekk député faaw Macky Sall te Macky xam naa ne moom. non xam nañ ne day démissionné. parce du ñëw foofu leer na. ñu dem ci bu Amadou bi. Amadou waaw. Amadou waaw ñu dem ci bu